salaamaaleykum. waaw naa ne fat alhamdulilah. ah na na na waay. ñoo ngi fi alhamdulilah si jàmm ba. alhamdulilah. te yow yaay yaay ñànko. waaw man la. yow la la la soxla woon. biir daa xaw a tàng wala. baax na mucc naa rek. na ngeen def am laa kay jàmm rek sant yàlla baax tarkaal bi laa kay jàmm rek am laa tarkaal la kay am laa kay ah, sama tànk eh, sabab bi yow la ah, ñaan ko daa ñëw kër ga uh-huh. ah, ànd ak mbokki taalibeem boobu ndaayaan uh, ndaayaan mbokki taalibeem bi mu faral di ànd <laughs> faral di di ànd rek waaye bu ñëwee kër ga nag uh-huh. ay xale lan eh, waxi mag lan lan lan fa wax uh-huh. waaw ah, waxi mag lañ fi wax. ndeysaan maa ko jur ah, ah. maa ko jur. kon daal xamal nañ daal wax dëgg yàlla. Mm-hmm. am na lu ko naqare lool lool ci kër gi. waaw mm-hmm. lu ko naqare lool. te dara dara dara dara dara du kenn ku dul yow nag. ñaa ngi ko wax loolu. ah ñaa ngi ko wax loolu. nee na ma kër gi daal jant bi yaa yaa yaa suñu borom sàkk góor ñi di dugg di dugg di génn ah te xam nga eh, eh, bokkut ak yi nga xam ne moom la lislaam bëgg waaw ma bëggoon nag eh, comme suñu borom dogal na ni yàlla may ma kàddu. bu baax ndax ko xamul euh, sëñ Xaadim borom yàlla rekk kay buur dégg nga ko mi ma ko waxee ma ne ko euh, euh, danaa danaa ci dox ay tànk tànk jàmm bu fekkee ne mënut tëye sa bopp ñu delloo la bàyyi ñànk wala nga xool ko ci bëgg ñu ah, ah, ah, ñànk moom du ma delluwaat ak ñànk moom ñu may ma keneen sax a ma gënal may delluwaat ba ay ñànk fii la taxaw bëccëgu ndare kam xas ma xas yu métti xas yu metti ne ma dama damay sëy moom ba pare amaat yeneen góor yu ma koy séqalaatal dafa nga ne loolu rafet na ah, ah, ah. bu yàggul dara rek laa ko bëggoon a yóbbu ci yoon ndax kër ga mu dëkk bañ ma ko jox sama wa bañ maa jox sama wàll man dinaa ko jël ci nii mbaat ci ne ndax kër ga maa ngi moom ma ko bokk day jël wàll ma jël sama wàll waaw waaye nag bàyyi ñànk moom du ma delloo moom tey du ma delloo moom suba du ma delloo ak moom ginnaaw suba kooku moom sëñ xaadim damaa bëgg nga xam ko a sax yow sax yàllaa la la waaye eh, li mu bëgg mooy comme suñu borom dafa ne nga doo delloo ak bàyyi ñànk nga jéem góor ñi wala nga ne wax ma loo bëgg ñu defal la ko góor ñi dina métti ah, kon nga nga wax loo bëgg ñu defal la ko su ma lay dama lay wax ni ma mën rek man mënumaa bàyyi góor ak góor lan noo koy waxee jigéen bàyyil góor ñi kan te góor ñi dañ leen a defoon ngir jigéen ñi ah déedéet kon kon kon kan la bëgg yàlla waxul la nga kii yàlla waxul la nga jël ñaareel ya. kakana yow ah, ah, ah, ah xorom na di ñu laaj la ndax yàlla waxul la nga jël ñaareel ya. ah wax na ko de wax na ko de wax na ko eh, benn ba ñaar ba ñett ba ñeent sa borom yàlla daa dogal soxna Aïda ma ci kër ga Salla moom mat na ma lépp. mënul matal lépp. mu ne. mënul mm. <laughs> na kese baaxul. foog ngay varié. Ah, ceeb ah, supp kànja ah. maafe dëxin. te yow sax yàllaa la indi. Mm. yàllaa la indi ndax man de yàggoon naa laa rëbb nag. ma ak kooka yow naa la rëbb sax dag ma dul daawul seetlu rek. Mm. waaw yàgg naa laa rëbb fii ci koñ bi su waaye muy jógee marché ma gis la nga toog foofu. kay wërngalu naa fa ba sonn waaye daanaka daawoo ma xool sax. Ah, lan ma sabab wërngalu gi li nii. Ah, waaw mu wax ah, tey taal bi dama doon wax boo soxlaa ñaar rek man maa ngi. ndax jigéen bu yàqoo góor mën na koo defar man ni ma yàqoo nii man xam naa ne tayuma ko man lii ma nekkee nii ci góor yi man leena ma ne tayuma ko e eh, acca acca man xam naa ne tayuma ko yaa ngi dégg léegi nag acca kii dëgër bopp. waaw moom taalibe nee na jébbalu si de ça va. man tamit damay yébb léegi daal man soo ma jëloon rek làq ma teg ma ci wetu soxna Ayda mu doon mag ma doon rak ñu sëyal sëy bu neex. Mbébé eh, téye boo téye gentil. yow sa bëgg góor gi eh, eh, ñànk di wax lépp dëgg la nga xam teg ma ci kanamu soxna Ayda ak ginnaaw soxna Ayda teguma la fenn laa ni yaa ngi te ci bang yalla ma bang ngi bang bang ko wax li nga xamanteni mom bang nga fi wax ni lim bëgg da bang ko def bang ñu xol nan lay def ñu bang lu ba bang ba bang bang bang bang dama ko bang bëgg bang bi bëgg bang bang bang bang bang bang nga nga bang bang li nga jëflante bang ñi doy solution bang la doon jox rek bang li bang nga jëf ci bang ñi ba bang bang ba bang doy ah bang bang bang dem bang rek di bang bang bang na na bang ci bang bang dem mo mo demoon na ma demoon ma demoon na. nga xaar ndogu rek. non ndogu ma laa ne. sëñ bi yaa ngi dem bi sa bëgg ngóor gi nga nekkee nag kàtti gi bi nañu ko yëg. ah sëñ Kadim surtout rek sax yow woo woo déet déet déet mandu mandu ci la bokk. maanu ma ci kan. doo maandu. maanu ma ci kan ba ñu sañ a génn ci koñ bi di ma ko wax. kama ko de kama kama li may wax nii kan ma ko de. li nga yaakaar li nga yaakaar ah eh, eh, ba nga juddoo ba tey ñaata góor eh, góor nga seqal kenn kaa xam ma ma toogee fii diir diir bi ma toogee fii yëpp sabigu xesaw xun ma may sa jëmm gi nga ma wax la ay lan lan lan lan lan lan. xaadim yaa ngi ëppal de. Ah? ba ba ñaa ngi ñëw foofu. rëcc na ay waay góor rëcc na waay ay waay góor rëcc na nit ñi wax dara doo ko wax li ma laa ne Korité gii di ñëw hmm. tubaari kàlla di nga sol daal di nga sa posat ma centenaire la lay booleel nga dem mu jox la dal ak poset nga sañ sa dégg jam tek sa prix xana neex na. neexul man sax li ngay wax ni yëpp dama ko talul man talu moom amul ko taseel ci buntu bi. waaw waaw. waaw señ Xaadim. Ah, señ Xaadim dal fi nga tok la toogoon. mais meenu ma ko ma def dal way nee na ñaa fa dem boole kaak man nan ko ay dama bëgg goor léegi ku dugg sa morom genn ah man léegi fan la jëm ak ñang ko. ñang ko mo dem. dem ci sëñ xaadim di ma booleek moom naan ko góor gu dugg sa morom génn ah. ma ñaan boo mën ku ma lay kalaame sax man du koo kalaame man mi ah te man li ma jaaxal mooy que yow ñànku yow yow yow moom moo la jur wala yow yaa ko jur. maa ko waaye mais yaa ko jur doo ko yëlif doom da nga koy yar yow seetaan ngaa ñànku seetaan ko seetaan ko ci lu ko ba fi ñu toll yow ñeme woo ko waaye bi du ci génnee noonu anam man bu ma fekkee tubaab kàlla dinaa jëflante li may moom ña lan la lan mooy problème am ah réewande bi kii laa wax daf ko war a dindi yaa ko ci war a yar ci réewande bi. war fee nekk di réewantalu. lu ne def naa. ma ne la lu ne def naa dëgg yam laa ko fi dóor dóor yoo xam ne du ko fàtte ba keroog mooy dee. ma tey nag war a raw damaa bëgg ngëm sa fulaak fayda dañ koo war a sot bu fekkee ci kër kii moo ma jàppee fekk nga jàpp fee dof bu bëri doole dañ ko sot. teg ko place am doolay dof la yor ma ne doolay dof la yor waaye dañ ko sot ñaara mën kenn dañ ko sot ñaa ngi koy kat lan waaye kii fàtt nañu waayaw ah ma fekkee fi tey ah. yow laa fàtt yow ah li ma la wax ah yow laa fàtt yow nee naa la kii wooree xol mi du neex te moom bu xolam naqaree moom Serigne Babacar si rek moo ko mën a tuddal Moussa. mbay yaajo doy mbay yaajo doy sëñ Aboubacar. rek rek maam yaa doy doo seen morom. taalibi Seex ma ndeysaan. mbay ah, daan nga dana kii daan nga ndeysaan. kii doon kii doon laajte kii kii moo doon laajte. Moussa Ndiaye mu ndi la. waaw daa koy daal mi teg pour. nee woon na pour nga ñëw fa de. Mhm. waaw saa ñaamu ndey la. Hmm. waaw loolu sa téléphone maa ko jël de sa téléphone. Hmm. mos a ne léegi nee nga ñëw léegi léegi léegi. yow toogal ñoo waa kon ñu def noonu. di xaaral ma xaaral ma ma ma solu ñu ne man. fa fa xaaral ma dugg solu ñu génnandoo. waaw dugal solu wax téléphone en attendant dugal dugal dugal dugal. yow looy def nii. man maa leew. maa lew ka ma dox da ngaa lew ah déggu ma ah yaa ngi jaaw li nga dégg baaxul de ah, li nga dégg baaxul ah, wuy ma waaye wuy ma defal ndànk waaye wuy ma defal ndànk moo la wuy ma wuy ma da ngaa woor damaa woor xoolal julit bi def yenn yi wuy ma wuy ma da ngaa woor wuy ma wuy ma wuy ma ñaan tema la léegi moom dama man damaa leew ku leew nuñ ko def an kay waaw yàlla déedéet man du ma la yar dégg da ngaa ay wax ay wax lu mu mënul ci yow mënu ko ci yow yaa wax léegi nga pour yar ma yàlla yàlla ma yàlla ma yàlla ma déedéet man kat du la yar yàlla sa yàlla ma rek yàlla ma man du ma rey sax yow ma ko dóor ni ak mbóot léegi kan moo leew waa man indi ko waaw léegi waaw dafa ndànk xaar dafa lan dafa ndànk man naa leew wala yaa leew waaw man naa leew waaw léegi kon yow ko yow yow fexeel a boobu waaw dafa ndànk ah xaaral xoolal wuyu ma waaw dafa ndànk dafa ndànk xoolal waa jël xoolal wuyu ma daal kenn daal kenn ko dóor góor xoolal yaa ngi def erreur daal daal daal kenn ko dóor góor daal kenn ko dóor góor man maa leew daal kenn ko dóor góor waaw dafa ndànk moo xam dama jël bant ah. dama jël bant bee aja waaw dama jël bant bale xoolal daal kenn ko dóor góor dama jël bant bee da ngay dee damay dee daal kenn ko dóor góor baal ngay def yaay ñàkk baal ngay def sa sa baal ngay def oui et puis yow yaay ñëw fii chaque jour indi góor ñi fii. déedéet man dama xam nga dama amul si man di ko góor. mosul si man di ko góor saa daal kenn ko doo góor bàyyi li ngay def xoolal ñànku bàyyi li ngay def ñànku bàyyi li ngay def ñànku passe ma yéene ñànku damaa woor damay a a yaa na na naa say na naa say daal ñànku waaw na na la daanal